Biolite, une gamme complète de soins révélateurs d'éclat à la fleur d'hibiscus. Ginny Ginny Erdal, moi suis New Year! 102.3, le nouveau son. demee 9h. Mhm. enveloppe bi nag moo ko yóbbul foofu. mais père. nga mhm. baal ma de sama yoon nekk si mais yow lan nga gis booy napp yi ba nga bëgg a paqueté booy Sona. loolu sa yoon nekk ci. Hmm. mais du man maa lay wax booy Sona li mu capable de sama grand. lay laa yow waaye lay laa ba nga ah nga ne ci mbedd mi mel ni personnel kër gaa kan ngi nii kenn reerul sa doom ju ñàkk jom ji ñàkk fayda mënul togg nun ñu xiif toog di la xaar ba léegi pour lan la eh dimbali ma oh, iya. dimbali ma laa iya, wax da ngeen yaakaar li ngeen di def ni iya xaw yëguma ko natt ñaare ngeen def na ngeen ko natt yéen di war koo mën a complot ba war ko tax tànnee ca bokk ba nga ñëw fi di lii fa di bi ne eh, góor gu amul ñaare amul ñette bu dee day fange na nga jall sama yoon dafa nekkul ci loolu. ah kon yow da nga genn ci mbedd mi imam bi jaxase nu nga ñew fi bëgg ma rey wax man wa legi ñang baalu loolu lu sama ci ñang baalu man. da iya, nga takut wa legi la ko sama yoon man. da nga dem ci takk sax en plus. ñang baalo ak yéen ñaaree ànd yéen a comme ñang baalo woon fu judd amul kilifa pan na kilifa ba pare lu mu def neex na Kumba sek sama yoon neew ci loolu comme Kumba sek ñak na fayda ba ñang baal takal ko ñaare kooku affaire am la yow mu ñay tak bokko ca ñay ñaani bokko ci yang may deg hmm. du fu jina japp la du leer la la wax du ma nekk ci commencement ba bu fee màggee nga ne yaay ut ut ñaareel bokkoo ci ñaar ñi am ñaareel yow bokkoo ci lu leer nag laa la wax. Euh, ma yëgal la benn mbir nag gis nga ni nga ma rombee luxati sama tamaate ma jàmb daal di lay tàkk bu ma keneen rombee noonu laa koy jàmbe ma dam ma tax ko. loolu moom yàllaa ko wax. ba ba ma gis ko. yow koy ba ma ko laay xaar. yow takkoo ñaareel ba ma gis ko takkoo ñetteel. ba ma gis ko boo ko essayé di nga gis. ba ma gis ko essayé ko rek nga xool. Ah, ba nu àgg ca ko yow. ba nu àgg yow may leeral nga def yaa ngi dëgg. waaw baax na rek. da ngeen ko waxtaane ba toog boo ko ci yow. boos boo ko wedde essayé nga xool essayé rek xool loolu. ñàkk nga dee. dégg ma laa. ma ne la nga ñàkk fay dama bëgg wax. Ah, man jeeg piir laax eh, nickel Christophe sa Colombe de dina la sonal Christophe Colombe livre rek livre rek ay hmm. eh, nickel sa waxi démb de tey laa koy soogu gëm Yang sax ah, ñang baal li mo waxoon ci mom yépp té la ko soog gëm ñang do la ñang moy purux du gërem ñamu daw fi mu jaara kumba sekk yépp amul lenn lu mu koy fayé lolu diko takal wuju bu doon sax moromam ñu mëna wax waye xalé bu tuté tuti xalé nu mu yëngale ana ban xalé mo mëna yëngal mak takku dugu ndaw du yëngal daxin eh ni ngay wax ni yépp xamna ko ba paré mais lenn rek laa bëgg xam est-ce que oui ou non da nga bokk ci ñuy takk ñaareel yow. yoon may na ma ko. <laughs> ba nga waxee yoon da nga yàqal sa bopp. ci naka. mais tu as signé monogamie mon cher. nit <laughs> eh, kel waay monogamie boobu moo may ñaar ñett ba ñent <laughs> tu n'as rien compris. Ah, après ngay comprendre. Ah, baax na. li lay dóor ngi ñëw mais lenn lu ndaw rek lu tuuti te bëriwul laa lay wax. Hmm. xam nga lan la. <laughs> Tak nga ñaarel mu yow ak sa bagage ci biti sa bëkkër tu m'as bien entendu j'espère que c'est clair. xam nga lenn rek moo la yàq mooy xamoo kaf da ngaa xamul kaf eh, mukk ci àdduna man rek ci mag bëgg sa jabar man yaay sama lay 4 point cardinaux na mu ma dara yéen yi foqale la sax ñang ngi daa foqale jigéen rek xam man dugguma ci yooyu dugguma ci chéri ko

He? Baba. Baba li ñaw na. ah Mbeur ma tol ne aw ngay nelaw di nelaw a nelaw a nelaw ba nëgër si nii. ah guddee teud way dem. ma guddee teud. Yu heure bi war na la fekk nga la julli jappu ah ba pare dem dem fële sa gandos ba commencé yéeg xawacc ci si montagne te xana xamulani. Euh, marchandé yëpp yàlla sunu yaakaar ah baaba xanaa yërëmu laal ma. mais bul def ñu père. ah. def ñu père boo defee ni man may def père man damay nekk roi des arènes man maa la ko wax. roi des arènes dama koy doon yi te làmb ci booru ma neex. loolu kenn mënu si dara. mbaa ko defee na nu xol sedd guy guy guy guy nu espoir bi yëpp si yow lañ ko waaye gis ngeen Barizo Barizo su ma ko rombee si koñ bi sama xol bi day sedd guy dafa mel ni sa Barizo dafa mën a parce que bu ma xoolee bu ma rombee daf may xool rek waa jànk kon yow wéeroo suñ la yeewoon xaaju guddi di la naan ay Barizo daf la nopp est-ce que nuñ ko gëm lu tax du ma ko gëm mais lu tax ba du ko gëm. ah ak classe bi ñu àndal. mais bu ko Bariso nobee daf ko war a ah. nopp fet yow de ku bon nga naka te. du question bon gis nga Bariso kenn rek la nopp mooy Nafi. eh kan mooy Nafi xola na njëkk tey na mujj tey ma toog ak yow nga fi tudd tudd Nafi dégg nga. wuy ma en parlant de sa tante moo nga ne waaw wuy ma yow lan nga nar ci sa nuit de noos bi. dafa am lu ma ci war a nar. waaw yow xamoo loo ci nar ah. tubaab nga nag maa ah, bëgg nga jonge وحنا لنا في دوسة مدارة بمو خد سما تانت لا دوسة مدارة يعني دوسة نعم. مدارة وحنا على كناك اه جانك آه. نأكل بنا نأكل من نفيد فتوية آه. كن ما توي اه سباق بقولنا لبا نأكل نفيد فا أم يام أم تغيير آه. من أو ما فين وح نفيد لا أمك وح يا جدا يا جدا ياو نفي ياو خلنا سبب إسكا دمان الأخير خلنا سبب تكاو بتشوف ba nga xolé sa bop nga mëna xam papa am ak xelam. su fekkee ne yow nga jang luñ eh aw ma yow nuyo yow bo démé ba sa nek sam papa mu lay waxu waxut nga mëna a xam ne àndut gis nga fi na fi bu wax ak mom xalé la yow tamit. non may mama tondo aw ma am ak wax. xalé fi kenn mo fi am ak sagom muy yow. yow lañ na lu tax yow mi mënul dem wëri sa yaay lan la amut Luma am man ba sa bay normal tak est-ce que nga lima la wax. du nee nga da ngay sëy si damay sëy si kay maa ngi xaar boo sëy si boo dugg sëy si bi kër gi di nga xam nan la ak naka la kenn moo la nar a yar muy man mii sa tante laggal moo gën ci yow loolu loolu nañu ñuy seetaan ah, baax na laggal naa ci aw maa wax da ngeen peer kay toog Je ne je dors plus je mange plus mais c'est parce que sama xol man Yo ya ci nekk keneen mënu cee j'ai juste envie d'être avec toi Nafiman, je t'aime et je veux t'épouser si tu es prêt. S'il te plaît, regarde-moi. Eh mais je veux que tu comprennes une chose ces bons moments cet instant cet endroit toi vous faites partie de mon passé ayca ayca lekkal bu baax. lekkal mère. lekkal bu baax. mbër. voilà. mbër. mais affaire yi nii laa ko bëggee. waaw waaw. sos jarul dara. waaw loolu mooy maye doole. loolu mooy maye doole mbër. Ah, moo tax ma def noonu. waaw dënn bi attaqué dënn bi baaba. gis nga suuf bi eh, sa soom bi mi ngi ca waañ wa. soom bi la. soom bi yow ma yaakaar ne yow fi mu toll nii ñeenti ganaar la ah ñaari ban ko joxee baaba kay xanaa ñaari nun ñaar la nu toog lekk ka lekk goo yow kay baaba doom bi yaay déggale yaayam ay ganaar yàpp nañ suba seeraas laa jël suba la ah. gindal la xar mu ndaw mu ñefe la ko monsieur bi man yow dama lay toppatoo sa carrière bii mu ne la ma jaral lekk bu baax bu mm-hmm. baax lekkal yaa ma doon wax poj gi naa dafa baax quoi poj poj bi day may doole mbër. Mm-hmm. loolu loo ma si doon wax. ma ne dama ne baala on na on na sax on na dégg naa si. Eh, da koy wan mu rees ak jàmm ak salaam kii da koy wan mu rees ak jàmm. baaba eh, may ma si pooj bi. eh mayu la tey mayu la suba. ñaan wala def day fa. maa ñemee ñaan. Ah. Hmm. yàlla na dafa métti de xaaral ma pare nga seeñu. Hmm? nga pare nga seeñu. seeñu da nga la defaral ay séance. séance donc ku am xaas defal la ay séance. am naa xaas mu toll ko la defal séance mu jeex tàkk. séance donc ah séance nga ko mënal. lekk acca acca. Sonia ça va. ah kon xam nga sama tur. ba yow laa koy laaj yow mi di romb nit yi te doo leen nuyu. ah ça lii moom daa mel da ngeen ma ko dencoon ba yàgg donc lii ngeen di xalaat ci ma. qu'est-ce que tu viens faire ici. pragmatique. je vois. si tu es là c'est parce que forcément am na non. oui effectivement. bon. Je suis venue te proposer mon aide. <laughs> Ton aide pourquoi Bah pour que tu puisses récupérer ta Nafi. <laughs> Barisso, Barisso, tu sais quoi Je ne là. que si papa. am là. xanaa sam. là. Je jàmbur là. la tax là. yow gis dans la vie C'est là. gis là. ni nga donc, au lieu de rester là à prénicher comme un gamin, comporte-toi comme un homme et battons-nous. Bista, <laughs> pourquoi tu veux m'aider Pourquoi tu veux m'aider nga ni man dinaa joxe sama aide su ma jógee daa fekk sama intérêt moo un il faut savoir que ni man ñaaw sama ñaaw tu ne m'as pas ma encore moins cette Nafi..! ça va pas Yen, vous avez un problème Yen, L'un qui gis pas paa vous hello hello. eh maman. comment vas-tu. ça va je vais bien. j'espère juste que tu vas prendre la bonne décision. c'est bizarre. c'est..? ça c'est une meuf de. elle voulait quoi. Boy, I'm bëgg naa leen ko yëgal. ñoo ngi seetaan ci koñ loo xamante ni. bu fi màggee. mooy koñ moom c'est fini yàqu na. booy bi pot la tudd xaw ma potin. mi ngi toj koñ bi. Hmm, man. boy bi netal li war netal rek wa mom fa la dekk ci koñ way way ñang li ma def barki de mo njaay gëna doy war yow mi fekk ma ci digg koñ bi ya, ya. na ma li ngeen complo tek deal bobu mm-hmm. ya. pour takale ñang ñaarel seen jabar yeug nañ soxo nu ma koy soxé non doo ko gis nga boy boobu man xomuko ga fayda Moustapha waaye boy bobu mbaadu dafa nara melni bayam ni baayam xam nañ papaam papi xalé do croisement Ngunjaan waaw amna ben ak tabaski ci fajar gi lañ faray bayam bayam façon lu tudon façon eh. façon mi ma daan dégg Ngunjaan waaw waaw mais ci bir lolu nak bis bi yàgg si na de. bés ba nati. dafa am lu bees sax. Hmm. waaw alxames bii di ñëw. laa bëgg yéen ngeen dem ñaanali ma na fi. kan mbir mi man. <laughs> lépp yemb na waa góor waay góor fit. góor fit. daal bëgg naa man daal na fi laay jël. ku fi ragal alaaji yow ragal pire nga. man kuy ragal man. ragal pire nga. man fa laa juddoo ci biir sans rabataay. alors loolu ca biir camp militaire ba leer na moo tax jiital convoi bi daal. ngeen dem bëgg naa daal bu tàkkusaan jotee Moustapha. incha allah boo ma woowut bu ma la woowee nga ne ma mat na. nu ngeen ma gisee ay sama jeeg yaa ngi ne jeeg jàmm ak njariñ am ngeen sama jàmm am sama njariñ jeeg jàmm ak njariñ baaloon ko ma yéen a toog nii ah légal ngeen légal ngeen légal ngeen waaye malgré légal ah. nu ngeen def Layla no wax ak kii yéen laa ko tànnal nag kenn ku ne dama la tànnal sa bos xam la sa couleur ah. xam sa couleur maali madame Ndoye eh. <laughs> waaw ju baax ndaamal ko saas jàppal yow yaa waral mbaboor moom coow lu coowee ni yow ah. waaw loolu moom dëgg la moom maaral mooy <laughs> yow moom da nekk ci combat de siècle maanaam guerre mondiale atomique a ji kii kenn la mën a yow laa ko indi kenn kenn ci ndeyam ak moom. kii pour yow kenn la ci ndeyam yow kese laa ko jox. rafet na waaw rafet na. doom parce que sot la bokk. rafet na waxtu moom rafet na moom. rafet na waxtu moo gën ngeen topp seen fer yu dëgg dijj yooyu fer yu jal-jali ngeen di bàyyi xew na léegi ceen yi xew ah amul rafet say kat dara dee tax seen jëkkër yi wut yegg ko yow naa kontaan man de li ma jaaxal yow daal lii ba nga ko jëlee daa xooloo ci kenn kenn man rek nga ci taamu nii xam ak su daa bëgg roos sa jëkkër daa bëgg roos ah waaw waaw daa bëgg roos lii moom amul daa bëgg roos roos roos

mbir la andi ah, iya. eh. Bali pencibir biñu sañon ñu koy ngeen waar de ngeen yor de ay kiccat leen ma ci dégagé ci sama responsabilité man déglu ba lépp ci biir yépp ay lay jërë nga iya, yépp lay ah doy naa baax na reus ñen de ablay ablay am nga a messi ak messi ak jaajëf jërëjëf def nga lépp tàndak bi yaa ngi dugg ci sëy te sëy neexul li ci kaw rekk mooy lem rawatina nag nga war a dem wujjeeg mag gi nga yi ma lay dénk bis boo ko fa yóbbaalee di nga yàgg ci sa sëy lool muy boo demee na nga respecté sa jëkkër respecté sa wujju respecté ña nga fa fekk ñépp bi ci topp mooy nga uufal ma ñépp nga muñ parce que jikko bu nekk di nga ko fa fekk nga war ko mën a muñ nag bis boo ma uufalee ñépp ak lii ma la wax yépp nga def ko ba am ci ndam loolu rekk laa lay ñaan boo ko defee sama xol dina sedd sa papa xolam dina sedd. maman bu nekkee lii nga ma wax nii loolu rekk mooy tax ma am néeg fa ma jëm ma xam ne man dinaa fa yàgg que sëy bii ni may defi yow ak sam papa di ngeen kontaan ci man ndax xam naa dara de mooy. wax nga ko dégg naa la bu baax te ñaanee naa ko jëfee incha allah ñaan naa yàlla def ko. baax na comme dégg nga bu baax li ma la wax man sama xol sedd na maa ngi jóg nag bàyyi la nga yeggale sa jàng. estoy mais saa waay kii talent ah? la ah. talent moom. lenn nag laay dem seeti di nag baalu na ko am naa waykat kaay produit wala ko. génnal sa xel ci paa boobu. ci tànk takk xale bu ndaw la nekk. man kay xam nga kan laa gisoon. waa ju baax kat Hitler wuu. saa yi foofu du baax. loolu de ko loolu xam dara. dem étudier sax ñu produit moom gën maa ngi xam dara. Ah, waaw loolu doo jëm neex de. ah kon koo gis yow. man daal fii leen mu sës. Hmm. muy lan ñu dem ci maire Ndeye moom mu jóoni bagage man. Ndeye ndaa man. maire Ndeye Fall men. a Ndeye Fall waaw. xanaa déggoo avenir bu baax ba <laughs> restaurant bi sax si bunt bi avenir bu baax ba lañ ko bind. mbër bi waaw nee na mbër la du sax mbër. xaal xaal bu toj boobu tasaaroo nga xam ne du dara. <laughs> voilà man lu ma gën a métti beneen mbër bu muy àndal mooy mbëru zigolaas bi zigolaas la. Ah, mën na bokk ak jaaytaari Bah, bah dis-moi, tu m'as pas dit. Comment tu as fini avec Boy Nafi Ouais, Boy, que la nec, En plus, tu vas jamais t'imaginer ce que j'ai eu à faire. Vas-y, raconte. Boy, sur le coup, j'ai perdu mes mots. Oh, mon le Épouse-moi, man. Lan <laughs> Bariso Rendi Djegi Tac <laughs> Non, bah, tu déconnes. J'ai l'air de déconner comme ça, man. Je suis très sérieux. Attends, moi, j'ai un truc qui m'échappe. Yo, Boy, si tu dis la main, bon, me mais comment tu as fait pour la perdre oui, man vous bu boy booy booy me sentir ça man en plus c'est là que je me suis rendu compte de sa valeur man. <laughs> sa valeur hein. <laughs> mais tu sais ce qui est sûr Nafi moi je l'aime et je ferai n'importe quoi pour la récupérer. Bonsoir. Eh, bonsoir. Ça Ça Ça va? Ça va? Bien, bien. Tu vas bien bah, bah, Ça va, Ça va eh, eh, mais vous allez où bah, Allez, allez, bonne soirée. Bonne soirée. Soukaina. Yo, dis nga Barizo non mais attends Ça envie

håller hon inte det. waa xool yi may xool pour lan la. ah dama laa war Kumba. ah war nga maa xool de waaye xool di ma di mana? nii. lan la. waaw Kumba Seck sa soowu mbari nii ak sa fruit yu bari yi de salade de fruits nga bëgg. moom ni moo gën a neex. laa yow li nga bëgg loolu laay def. bu suba ma defal la salade de yow léegi lekkal lii ba suba rek. waaye reer bi neex na. soo mi fruits yëpp macha allah. léegi nag boo paree. Mhm. ma lay dugal fee ci biir. nuggal ndox mi ba mu nugg. Mhm. ba sa yaram ñime ko. Mhm. ma sang la. sang ma maa la wax lii ma. <laughs> Kumba. Ah. xanaa dafa am loo bëgg. lu mau bëgg comme la ah okay, kamu ma lu may bëgg dama ni ne lii nii ma gis tey hmm. reer bi mu toggal ak fruit ni, nii ak sow mu ni daana am tamit wax dëgg yàlla Li. na <laughs> lii mom moom gëj naa kerja. dund fii ci kër gi ay ngay wax ah li ah, nga wax moom baaxul mais yow yaa amul jot rek yow doo amul jot waaye yow xam nga ne boo amee jot ba toog ci kër gii mm-hmm. ma rek ci taaj ak kippi ak def lu baax maa ci toog bonde tey jii waaw utal nga ma jot <laughs> dinaa la utal jot kay xam naa ne upp moom baax na ci laax bu tàng dégguma ah. waa lan moo waral loolu wax yooyu yëpp damaa xamul man lan moo ko fi waral leneen de lan moo ma yëm seetlu naa daal bi ma ne dama lay takkal ñaareel di préparer ou la wujj ba légui affaire dal dafa yang, ndekete yéen yéen dof len quoi yéen jigéen ni da ngeen di dof dof kuñ ci outal wuju rek nga commencer di def nu nek ah da la lay xamal xalé bi ma indi fi mo toj carte bi de marché nga am de bay bo nak nga préparer jeu lolou mom am la koy wax légui waye man footballuma ma man footballuma ma te man yeguma ma ne woon sax sama gar nak daf ma war rek ma diko def waye yow budul dara dag ma wara sagal ndax man dama togg sama reer bu neex tegal la nga reer ba suuf ma tegal la sama fruit tegal la sama jaru suuf tegal la ko nak ak tegen bu rafet budul dara sax nga sagal ma <laughs> te wax ju neex sarax la man de lol la gis. dëgg la waaw. bës wax bu neex sarax la waye motivé tamit sarax la man dama la doon motivé rek. Mbasek sangu bi nak ah dang ko bàyyi. Eh, tàmm naa sang sama bopp ma jógee ma jógee sang sama bopp. Nafi màgg na. waaw comme Nafi nag nekkatul xale. yaakaaroo ni nak jot na Nafi xam dëgg gi. ban dëgg noonu. ci yaayam. wuy ma waxu kooku bu ko tuddati sama kër na mujj tey nga may tudd kooku fii ah kooku bu ko tuddati fii sama biir kër leer na. damaa xam ne jot na mu xam. bu amee kuy xam ak ku dul xamal du yow yaa koy lijjanti. du ma denc dara nag ay at gas ko suul. nga bëgg ko sulli yàgg nga ci kër gi te mësuñu problème boo moytuwul nag dinañ ci jote ah te boo moytuwul di nga génn kër gi lu leer laa de soins révélateur d'éclat à la fleur d'hibiscus. Vibe Radio, c'est surtout la musique qui cartonne. Yo, Radio. le nouveau son.